waaw taala <laughs> waa làmb jooju moom boo ñu ci laajee dañ ci sawar a parce que dafa nekk làmb joo xam ni làmb coow la quoi xam nga làmb dafa am ay combat yoo xam ni ay combat coow la amateur dañ koy bëgg di ko xaar yàqamti ko te sook koo xam xam ne moom bisam noonu lay mel Sokh moom moom dafa mën bés boo gisee li tax sax promoteurs i bàyyi Franc amoon na yeneen adversaire mënoon na waroon na mën a bëreeg sax ñoo xam ni ñoo raw Sokh ci làmb mais tax promoteur yi bàyyi leen fi jël Sokh ma leen ne Sokh am na lu nekk ci moom quoi maam day jaay bés te gis nga ni mu def bés bi da koo jaay te et dafa fonk bés bi Sokh ànd ak waa xam si cosaan xam nga jël làmb ji génn voyage liggéey ci ñëw bi mu ñëwee da nga xam ne kii am na doole te bëgg na làmb ji xam nga te xam na fi ko làmb ji di yóbbu quoi wax na ko te ëpp yi yow nga jël làmb ñu fay la ci kase boo xam ne mosoo ko bëree mu leer na ne boo daanee loolu day yokku da nga ciy teg sa bakkan te moom wax na ko nee na moom da nekk ci làmb di def nii mais dafa dem ba yeewu xam ni dafa am place ci làmb ji am ci cër te daf koo bëgg a jëli te lim liggéey ak ni mu waajee làmb ji wane na ko quoi wane na ko. waaw mais dañ gis ne Sokh dafa ñeme Franc. tellement ba si signature bi Franc mel na ku ko ragal mais est loolu du stratégie si Franc. waaw non stratégie la ndax Franc moom ko koo xam-xam ne ragalul Franc moom Franc ragalul mais soo ko ko xaw a dàq communiquer moo tax mu koy moo tax da koy dugal lu ñu bëri da koy dugal di ko wax loo xam nga li ma la di ko mel lu comme ni soo ko Franc wax di koy lu koy soo ko da koy xaw a suruxal ndax da koo dàq wax mais Franc koo xam-xam ne ndaanaan la ni ko gisee noonu champion bu mag la xam nga xam nga tey déggagul muñal Franc daanoogul am na diis combats yaa ngi dégg palmarès bu riche la def ñi gën a tëj ci làmb da leen daan xam nga maa daan Tyson 2. loolu rek ndam maa daan Caatu Yoof maa daan Njaga Doole Serigne Ndiaye Jara 2 Géej Mamoulaan Rëms ñoom yëpp nga boole mbaytin waaw bébé Saloum mbaytin ñoom nga boole leen daan daanoo ko kooku ndax ak li mu def ci liste simple bi yaa ngi koy gis chef de l' état yi dix millions yi li ñu nag yëpp dafa def boobu rek rek la daan final ndaanaan la Sokh moom moom moom ci boppam sax xam na ne am na bés xam na ne am na làmb làmbala làmb boo xamante ni daal ku ci juum daanu mais Franc mooy favori. Franc parce que gis ne làmb ji dafa dem ba mujj bi dafa dafa dafa waa waa Passé dañ ci dugal seen loxo ku mel ne ñoom Modou Lô ñoom Papa Sow nekk ci ginnaawam waa Pikine dem ñëw seen 100 pour 200 ñoom Ama ñoom Eumeu Sène làmb nga yaakaar ne jour suba bas bi ragaloo stade bi ku yéex. stade bi du fees. non ku yéex doo am place. doo am place bés la te xam nga ñi monté làmb ji ay amateur lañ ku ci mel ni moor bu parcelle ak Xaadim Anta Seck ñoom ñoo gérer journée bi boo xoolee boo yi war a bëree ci suuf rek ku ci nekk da ngay jaay trois ba quatre bloc Baba Jaxal moo war a bëri spécial bi ak bébé bis mi jeex jàmm war ci bëri ak Aliou Fatfat caatu piol bi xam nga war a bëre ak Ibu Afia guy manko war ci bëre ak ñang baalo anaconda war ci bëre ak réparé caatu sanzala sàkkal numéro deux Ibo bu kër Mbay Fall ak maam Bala Junior combat yëpp booy dañoo am ginnaaw moom moom lamb ji dina fees dell te gis nga Pikine ak Parcelles niñ attaam maanaam niñ duggee ci lamb ji gis nga Franc bi muy def kii bi face face à la presse bi bi muy jàngal presse amul benn mbëru parcelle bu des ñëpp a ngi ci ginnaawam te noonu lañ koy ëmbee indi ko soo ko tam gis nga bi mu koy def ñoom ëmma seen gaa yëpp ñu ci ginnaawam te noonu lañ koy ëmbee indi ko moo leen daal bis bi du bis bu ndaw quoi bis la boo xam ni maanaam dina marqué am am ci làmb. waaw parce que dañ dégg Modou ne dix combats Franc day daan Sokh yow en tant que nga yàgg dem di seetaan Sokh seetaan Franc yow yow lan moo saxalaat si loolu mu loo wax. waaw non loolu moom gis naa ñu ko ci critiquer mais man dama jàpp ne am na ci droit parce que plein am la mënul wax leneen lu loolu. non yow en tant qu'amateur seetaan nga nga ñëw si làmb di la sant est wax noonu si dix combats Franc dina daan Sokh. non làmb nag dafa doy waar làmb dafa doy waar te Sokh du waaj na làmb ji te liggéey na combat la boo xamante ni ñoom ñaar ku ci ne mën nga daan sa moroom ku ci ne nag am nga ci ay avantage Franc moom fooram lu ci bëri tàkk la ak wet jéem a fexe nu mu la nu mu la wetewoon nii waaw booy xool moo sut tuuti nu la wetee jéem wër ndomba boo xoolee Franc làmbam yëpp lu ci bëri da lay wër ndomba door la daan wala mu tàkk la nii wala soit mu xeex ak yow comme Tyson 2 wala soit mu xeex ak yow mais soo ko tëlewul soo ko mun na ko jumloo mun na ko woo ci xeex bëreeg moom li mu bëreeg gàmmu gay mun na ko cokkaas Franc daw wut si ko mu fàq ko mu kaatape na cee am mën nañ jàppante wure wure bëree Sokh daan ko ndax Sokh kat la Sokh dafa mën a bëre te liggéey na doole bu daan Franc. waaw mais dañ gis ne Franc combat bi mujjee daan Tyson 2 kenn du ko wax kenn du ko naataame si làmm daanaa na si làmm yaakaar naa simple bi dem toj na ko arène bi tey te boo kagalee si seen dernier combat Franc ki mu daan Sokh ak ñi mu daan Sokh kii kan la mujjee daan gàmmu deux gàmmu kii la daan euh, ñu mu tudd gàmmu gee la daan boo kagalee si combat bi yàggul noonu mais boo kagalee si ñoom ñaar si ku ñu mujjee ñi ñu mujjee daan yëpp boo kagalee Tyson 2 moo gën a nekk ndaanaan kon dèjà Franc ñi mu daan Sokh daanu leen mais làmb nag mun na mun nañ xëy suba dimanche bi mu ñëwee si beneen mu mu wasi si beneen nga loolu. non lu